Cheikh Mbaba Tyson Mbaba cokkaas na Tyson Mbaba dafay bëgg a dem xamaguñu ma mujjee Tyson Cheikh Mbaba tey ci stade Iba Mar Diop ci teewaayu Assane Diop teewal ci Ousmane Tanor Dieng ministre d'État moom mi ñu cërale bés bi muy combat bi tey doon Cheikh Mbaba ñu ngeen naxante tey zone si diwul Mbaba day bëgg a dem du xam ni mën na gréco ko tey zone mën na ko

tey zone nag bokk nañ ci équipe nationale bu bees bii nga xam ni ñoo dem barke dem ba rek jeu amoon ci Tunisie tey doon na sànni ku peñ Mbaba ngee bëgg a dem Mbaba dee bëgg a dem tey zone tey zone daje na ak moom tey zone ay sax tey zone tey zone daan na Cheikh Mbaba jëlee bu sëb